jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal dama naan ñaan yàlla bu doon compétition la Serigne Jamil mii ñu jàkkaarlool jël na ndam li ndax bi mu gëjee génn ak léegi réew mi nga ko doon laajte ndax résultat ndax xam-xam waaye ndax satisfaction gi nga xamante ni ay client am wala sax ñi ko suñu borom booleel ngir mu ñaanal leen am nañ ko saa su ne nit ñi dañuy wootee fu ne di ko gërëm. lenn may ko ko lu dul ragal yàlla lenn may ko ko lu dul jox ak li nga xamante ni moom lay jëflanteeg ñi ko yaakaar ndax ñi ko yaakaar bari nañ lool waaye kum ci pareel rek nga yaakaar ni yow dong yaa mel noonu ci moom. loolu nag li ko may mooy yaram xam-xamam bu doy surtout ndax asraar gëstu na ko ci fànn wu ne gëstoo na ko ci réew mi côté bu ne fu mu ko yaakaaree rek dem na fa sonn ci lool ba mu yàlla def ko nii moom jam sëriñ Jamil ñu seetsi si ko nag ngir waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi ndax dama naan kurusam gi kum ci ñaanalul ci réew mi amul ñim ci taal bëri na ñim ci def nii tey bëri na moo tax réew mi bu yëngatoo dañuy daw si ci moom ndax moo ñu gën a xam ku ne Ousmane Sonko gis nañ bërki démb bi mu génnee bal bi mu yoroon dégg nañ ñu ni bal bi mystique la mystique da cee ne moo tax ñu daw si ci sëriñ bi ne ko bali bi est-ce que du sax moom moo ko jox Ousmane Sonko loolu lépp dina leer waaye sëriñ dina def ay révélation ci Juan Branco mi nga xamante ni moom moo teree nelaw suñu gouvernement bi rawatina premier ministre ak ministre bi nga xamante ni moom mooy eh, ministre de l'intérieur bi gis nañ ni ki nga xamante moom mooy Cheikh Bara Ndiaye ba léegi mi ngi feebar asma la am mi ngi ci prison bi feebar Serigne bi dinañ waxtaan ak moom waaye dañuy waaye surprise bi tey mooy président Ousmane Sonko dañuy waaj. ngir arrestation te arrestation am dina indiwaat jéeye ci réew mi sëriñ bi nee na nañ ko bàyyi ndax li mu gis tey dina ko wax balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñu sëriñ bi sëriñu sëriñ si sax laay wax moom sëriñ Jamil mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah ok jërëjëf aùzu billaahi alxaaili fi maxkimihi tansilihi wa nunassil min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin wala yasidu salimin ila xasaara ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu waa senegal di nuyu waa bitim réew di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala def ci réew mi jàmm di ko ñaanal kilifa diine tamit suñu borom guddal seen aar leen liñ bëgg naal suñu borom defal leen ko di ñaan tamit kilifa aada yi na ko noonu di leen mhm. ñaanal yéen tamit. Ah. jërëjëf. jërëjëf sëriñ Jamil ku yàgg di topp suñuy waxtaan dina xam ni waxtaan bi heure bu ma ko daan ubbi rek mhm. dama koy ubbee li nga xamante ni mooy seet. Mhm. waaye réew mi comme que dem nañ ba jagleel la ne seet jamono ji yaa ci toog yaakaar naa jarul ñu ci xuus lu yàgg njëkkee ñu njëkkee tey ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla yaa ngi ciy liggéey lu am solo muy wàllum kàttan jër jërëjëf gannaaw yàlla ba ñu gannaaw loolu sax ba ñuy dugg ci mbirum kàttan googee. waaw ndeysaan damay ñëw ci wàllum seet. wallaahi. ndax damay faral di wax man ku aajam du faju du ma woo. déedéet. te ku ku aajam faju du ma ñaanloo. déedéet loolu yàlla moo ko dogal sama jëmm ji. Mm-hmm. beneen bi soo damay faral di wax tamit naan seet ak sax dama ci am ab cër. waaw dama ci dama ci def loo xam ne sax nit ki dama ko wax loo xam ne day jàpp ne. Mm-hmm. nit ko xam moom wax ay mbiram ma wax ko ko te fekk ni sax lool xam-xam moom suñu borom xamal la ci moom mm-hmm. Euh, gannaaw loolu tamit am na sëriñ soo xam sax dañ leen di seetloo mën nañu waat si ma seetal leen. lu ma wax leen ko na mm-hmm. dafa wax ne lépp loo leen gis ne dinañ ko jaay ba. waaw buntum ñaan day seet. dëgg la mm, te ku yàlla di noyyi. Mm-hmm. Euh, bu yàlla dogal la ñu jëflante. Mm-hmm. Euh, doo ñëw rek ma jëflante yow déedéet. déedéet déedéet dafa am yoon am ñoo xam ne dafa am ñu war a am ñu wut a ñaanal. am ñoo xam seen aay daan dafa ci man am ñoom seen aay dafa ci man. waaw loolu nag dama koy xam dëgg la. léegi nag loolu bu ñu bu ñu bu ñëwee ci ma seetal bu mën sa ay nit faju dama naan xooli keneen. Mhm. moo tax moo moo tax ma li ma wax léegi ku ay nit faju dama woo. waaw te ku am ndimbal bi ma woowee aajam faju. waaw seet moom dafa bokk ci doomu aadama nit ki waxtu wu nekk daa war di maanaam toogee weer wala ñaar daa war a xool boppam. Mhm. ndax am na yu koy gaar am na yu war a ñëw ci te yooyu bu ko seetu mën naa ko bañ a xam. te bu ko seedee def ay saraxam wala mu def la ko wala mu war a def suñu boobu naka dimbali ci loolu mhm. ngir aajo mën a faj ci loolu man loolu ko dogal mooy buntu bi te ku la seetal it nga koo so koo am na sëriñ soo xam ne waaw maanaam man ma wax leen ko ñu waxaat ko ka leen seetloo mhm. kooku di leen tàgg te gannaaw yàlla man la xam naa ci dara loolu ba ma lu yàgg la ndax it euh, man li may seet ci alxuraan lay seetee mhm. seetu mu ci ay pitaaw ak yooyu déedéet man sama lépp alxuraan la mhm. man suñu boobu dara man loolu alxuraan la man xem naa ah. loolu mais ci laay defee ci laay dindee nag <laughs> mais li ñu jaaxal ci alxuraan boobu ngay jël hmm. liggéey ci liggéey ci liggéey ci ba génn ci garabu kàttan goo xamante ni hmm. butéel bi ngay jox nit ki sax mën na koo bañ a jeexal lu wér piling hmm. waaw damay faral looy lii tam tamit sëñ bi kéemtaan la eh, dama cee naagu waaw baraana sëriñ soo xam ne sax dama leen koy jox ñu koy joxwaat waaw jàpp ne seenu ñu ma koy jox ñu koy joxwaat ndeysaan ndax biteel bi képp koo xam ne sa awra dafa dellu maa ngi jéglu baax ci kàddu gi ndeysaan wala sa kàttan néew mhm. wala nga seedi gaaw daan ba ma la ko dama la koy jox léegi nga naan ko gis bi damaa dem ba toll foo xam sax amutuma jot sax di ko jox ndax dafa am ay spécial ñoo xam ne leen koy jox waaw lu mel ne Italie ak Amérique euh, Espagne Angleterre Allemagne mhm. ak France mhm. am nañu spécial nit ñoo dañu ma faa nekkal ngi sama jëmm ji ci di dàq seen wërsëg ci biteel bi ci biteel bi jël bii am na médecin yoo xam mhm. war loolu mooy njariñ la ndax dañ composé ci aayab bi na way sidakum xuwatan ilaa xuwatikum ak yeneen aaya yoo xam ne jur ma koy tudd mhm. waaye nag ku yàlla dogal ma jox la ko da naan léegi gis njariñ léegi amut suba amut gannaaw suba loolu mooy yàllaa ko dogal bitel bii képp koo xam ne ngay sëy di gaaw a daanu laax waaw wala sa ordil damay faral di wax awra sidit la rek mhm. sidit day fasu mhm. am na ndox moo xam ne ko tàllikoo goo xam ne dafa tëw a màgg nga di ko roose muy màgg loolu dong la da ngay gis ne day def pax mhm. waaye léegi day mel euh, ñu bëri bu ñu turee ndox day mel ne day ndox mu wis rek waaw li waral loolu ñi naan ci lekki la ñi naan nangam na loolu lépp mën naa doon loo xam ne ay cëslaay la ci day nekk ci doomaate nit ko xam waaye nag dama am solution boo xam ne dama koy indi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne am maanaam juróom-ñeent fukki at duñu mën a daal seen soxna garab gi boo ko naan day mel ne ko am fan faniraat naa si ak comme maa doon rek koo képp xam ne ñàkk nga yaakaar ci mbirum kàttan moo xam ne dem nga fu la neex mm-hmm. boo ñëw ci ma dimbal ndax lii solution la mm-hmm. solution la ak tuddee ndax damaa dem ba toll foo xam na nit ñoo xam dama leen koy jaay dama leen koy jox ñu koy jaayaat ci dàq seen wërsëg te gannaaw yàlla man mhm. mhm. mhm. a yàgg ci kaw suuf moo ma ci sonn waaye nag ma wooy ma dimbal la ci macha allah jërëjëf waaye sëñ Jamil la miin xam la tuuti xam na ni xam-xam ku ci laabiir nga. Mm-hmm. di nga toog ak ay kilifa di partager ñoom xam-xam. Mm-hmm. di waxtaan ak ñoom xam-xam di leen ci jox ay secret waaye am na loo xamante ne da cee toog te bi nga ci mm-hmm. toogee ba léegi. secret bi bëggu koo joxe muy wàllum kànnaar bi. waaw kànnaar bi euh, mi ngi nii. waaw suñu mbooloo ma ci defal taw fii xamit li tax bëggoo joxe secret kànnaar bi sëñ bi loolu it war nañ cee wax. waaw bi euh, dama ci dimbali ñu bari. dëgg la ni yëkk na ay minoo jox ko sëriñ te gisul li mu bëgg mu ñëw ci man ma defal ma defal ko li mu bëgg. gis ko. lii day alxuraan kese waaw te yàlla xam ne lii maanaam si daar daa ma koy def léegi gis njëriñ li ci wàllu boole nit nag maanaam jamxu la maanaam boole ay nit waaye nag ci biir boole gi nag maanaam maanaam foo xam ne dafa nekk bitim réew mm-hmm. eh, ngay jëflante ak tubaab mu lay bunda xataa wala mu lay takk saret wala mu def nangam nangam boo ñëwee ci man def bu ma ko defee moom moom dana la respecté a ba ngay liggéey maanaam boo bëgg a ju gannaaw yàlla mm-hmm. la neex waaye ñun mbindeef mënu ci dara gis nga kànnaar bi ñaari xaj sax mu ne ko man weesu naa fu may wax xam ne damay wax benn asafur laa. déedéet daray eh. bi képp defal naa la ko dama la koy defal léegi nga ko nga gis njëriñ léegi man naa xam tur wi rek. Mm. ko. naa xam tur wi sa tur yow. ñaari tur yi dong. dama ne dama ne tubaab moo gën a naqare. jàpp ci adduna te dama koy jàpp man. ci kànnaar bi waaw ci kànnaar bi. lii tubaab ak tax a jug même ku tubaab sax da koy da maanaam da koy saafara waaye nag boo gisee tubaab dafa dafa gën dafa dafa gën a naqaree jàpp nit ku ñuul. Ah. te damay faral di wax tam maanaam mbirum boolee dafa jafe moom noo am yam. waaw yombul li gën a jefe ci ñaan ci la bokk. dëgg te ñu bëri mënuñu ko. waaw te man dama ci am tawféex. alhamdulilah cépp koo xam ne yàlla dogal na tamit da nekk ci bett bu fa jug boo ñëw defal la ko wala nga nekk ci entreprise wala fu mën a doon mm-hmm. na lool waaye noonu man lépp la may junj rek macha allah ma ci wee sa aajo fa ju mm-hmm. waaye nag ku yàlla defal tawfeex dëgg dëgg moo jëflante bind ma la ci neexal dama lay wax li am ñëw ma fi ngir dara maa jug ngir leen njariñ ngir bëgg yàgg ci kaw suuf ndax in tansurullaah yansurkum mm-hmm. a dimbal doomu aadama ngir am mm-hmm. ngir bëgg am dimbal yàlla mm-hmm. moo tax ma ci sonn ndeysaan loolu dong la <laughs> allah waaye waxtaan bi du neex sëñ bi ba ñu fàtte li nga xamante ni wax dëgg yàlla bu la réew mépp xamee bu réew mépp naan sëriñ Jamil loolee moo tax muy wala ñu dikk ci fas gi ba pare. d'accord ok <laughs> ndax ci jaaro bi laa bëggoon a dikk. waaw fas gi moom lañ ci ñëw ndax li tax ma nar ma ñëw ci mooy. jamono dafa yàqu. li day dem ci wàllum boole mooy moo tax a jug. Mhm. ci alxuraan. képp koo xam ne yaa may dégg. maanaam sa soxna wan la ginnaaw. Mhm. wala sa jëkkër wan la ginnaaw ku ma ci ñoom ñaar rek. Mhm. bu ci wooyee du jéggi ñett fa tegu so li nga bëgg yaa ngi may dégg lii genn góor ko joxoon du ma wax fu mu nekk euh, ma fonk sax. ndeysaan wallaay ndeysaan ma defaloon ko loo xam xaw dafa sedd jox mu yëkkati lii jox ma. dama mhm. wax tuuti na lool. waaye nag mën naa tukkal àddina. ndeysaan daanaka bis ñëw ci bis da nga koy maanaam ko soxla. koo xam ne nekk ci àddina laa wax. waaw naa xam turu soxna ak turu waajur jigéen ak sa tur yow. muy góor ki muy ko jigéen ki la ma cay def bu ma ko defee du jéggi ñett fan ko si li nga bëgg. bu ma defee ñaari xat sax ñu toppante waxuma laa nit ak nit maanaam bàyyum bu leen boole ñu toppante. Mhm. ànd. waaw juboo. te te te sañ bañ. beneen bi topp gis nga fas gi. waaw yàlla ma ci dimbali ma ma ci def loo xam ne am na ñoo xam ne yàlla xam ne ay juróom-ñaari at dañ am duñ tuddante. Hmm? loolu da koy wan ginnaaw bu ñu ñëwee ci ma ma dimbali ko ci. te te te te loolu moom dama ci am tawfeex beneen bi topp mooy jëmmi fas gi. Mhm. maanaam du ma ko defal ñaar ñoo xam ne takkantiwut maanaam ñaar ñoo ne sayuñu ndax it mën defal nit mu def nekk suñu noonu te boo bàkkaab yaaka ko te day ma ko jërlu tamit te damay faral wax moodu moodu yi nekk mm-hmm. ko waaw am na soxna ñoom ñi ngi am na mm-hmm. ñu leen wonaan soxna si na doom ñi ngi a juruñu ko allahu akbar te ñàkk xoolal loolu rek defar ñàkk soxnaam ak njabootam te kullukum raahin wa kullukum mas'ulun an raahiyatihi mm-hmm. maanaam njaboot gi sàmmul te ëllëg lañ laaj fexe li nga def sa bopp nga def ko ci ñoom waaye am ñoom day ñaanu bopp rek bàyyi seen bopp mhm. dañuy ñaanu seen bopp bàyyi seen mbokk wala bàyyi seen njaboot mhm. te loolu baaxul waaw te njaboot gi mooy léegi képp koo xam ne yow lu ko dal yaa koy faj fexeel mhm. ngay sabalu ci moom ndax mhm. la yàlla mooy faj waaye mhm. te ñun du ñu koo xam ne jëflante moom ñun ci côté boobu sa àjjana faju waaye képp koo xam ne sa jëkkër dala war ginnaaw wala sa soxna war la ginnaaw wala nga am koo xam ne maanaam da ngeen liggéey mhm. nga nga bëgg liggéey boobu maanaam mu gën a dox mhm. te kooku du man ci yow dara mhm. wala kooku gën laa jublu ñëwal ci man wallaahi nit da xaalis ci àll bi te bu ñëw ma dimbali ko ci waaye nag nekkul yomb ndax ab liggéey la laaj waaw kay laaj ci a yem macha allah <laughs> dama doon wax wàllum jaaro bi ndax jaaro bi nit taal na otom daw ay kilomètres kilomètres ñëw mënta am jaaro bi waaw ndax xam na ni am jaaro bi mooy mm. texeem mm. te jaaro bi yaa ngi ciy def lu yéeme te doo ko jox ku ne waaw jaaro bi moom ko mu toofe doo ko am yor xaalis taxul nga ko bëgg ka am bëgg taxul nga am ko bëgg ma bëgg ma jox la ko taxul nga am ko. di waay ndimbal yàlla rek nga tax nga am ko ndax jaaro bi damay faral di wax man mi ngi ni ma takk. waaw dootul sama am na fi. waaw ndax man lépp lu may sama bopp laa ci la waaye jaaro bi ku yàlla bind nga am nit mënu laa ñabar. soo mën a dem ci àddina nga dellu si damay faral wax nit a ngi tukki te bi ñu am néew doon. lu mhm. wut loo xam ne gannaaw yàlla sax euh, dee am na. Mhm. Euh, te nit ku ne dee loolu yàlla loolu ñëpp ko xam. waaw donte am na ñu ko gëmut ndax am ñoo jàpp nañu day amut. ndeysaan donc dañuy gis ay néew waaye ay ah. caaxaan nga jàppe nii. waaw waaye nit dana tukki. Mhm. te bi ñu am ni lay doon loolu maa wax. waaw waaye sabablu ngir tax yàgg mhm. bi ku ko takk ba at a dem da nga des da nga gudd fan tamit. Mhm. te ku yàlla bind kuy noyyi mënu ci dara ndax damay faral di wax téeméeri junni njariñ ak ñaar fukki junni am na ko. waaw te ku takk jaara bii doo dee ci accident doo dee ci lakk foo mën a maanaam bu amul sens dëgg li gën a woyof ci moom mooy faatu. allahu akbar. te jaar bi ku ko takkale ku la liggéey da nga koy gis jaaran ciy gént. kon mhm. noonu ma la ko waxee noonu nga gisee ciy gént noonu ngay amee. Mhm. jaar bi ku ko takk mhm. maanaam ki am ak ki am duñ man lépp lu may defal lu ma sama jiir sama ndax man mi ko takk xam naa ko. waaw jaar bi ko takk tamit lépp luy wut dala yomb. te xaalis dala yomb lool. bari maa di ki naan lox deful ko boppam ak nangam nangam gis nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne ba addina tukku ñu am dara donte dañuy ñaan waaye moo tax man nit ku du balaa bala ma kaa ñaanal faaw day ñëw ci man ba seet ba leer na kii li li ci man war naa ko a am ba pare bu ñëwee bu fekkee ne war naa am kooku moom tëdd na ne na li mu la wallahi lazim wallahi ndax waxtu def ci émission boo xam spécial jaar lay doon dama ci am ak ndimbal waaw waaw ku yàlla bind koo xam ne yaa ngi muy rek ma ci dimbali na na xam ne may dégg te bëgg jaar bi nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi bu baax macha allah te xam ne ñi te ngi joxe jaar te jaar boo xam ne ñi leen koy jox ñi koy teg te waxtu ne dañ leen gën a dellu ginnaaw um ndax ñi ñu takk rek te lan naa am sa duñ ko amee dañuy a dellu ginnaaw ñaan sëriñ ci naam fekk na ci ñoom la mm-hmm. lépp lu dugg da nga a xool mm-hmm. ba xool na ba xam li xam ba xool li war nga mën a nga sokka am xool dong la <laughs> macha allah waaye falaa bëggoon a jàll dugg ci actualité ndax mm-hmm. sama waxtaan ak yow lu ci bëri dañ ko daan tënk. Hmm. Hmm, ku bàyyi xel suñu waxtaan bee paase xam ni sa daara ja laa la fekkoon. Hmm. nga doon doog a génn xeloo ma fekkoon fa image boo xamante ni gannaaw émission bi dafa daw sama yaram. muy góor goo xamante ni def na ay at bitim réew. way juróom génn àdduna ci ginnaawam yëgu ñëwul lu ne xew ci ginnaawam yëgul. ba mu jëflanteeg yow ci wàllum kayit. ci ay fan yu néew mu ñëw. waaw mbirum kayit euh, yàlla mu ci dimbali. ndax ah, loolu nga ci dégg rek moo ci gën néew. moo ci gën a tuuti sax laa bëgg wax ndax maa ngi dimbali ñu bari am na ñoo xam ne sax danoo ñàkko jom waaye mën nañ li ma leen defal mhm. war nañoo génn di ko wax ndax lu baax wallaahi wallaahi ndax kooku kooku kooku waaw loolu sa fay ndax kooku li mu wax leen neen yàgg na fa waaw am na fa fanweeri at waaw te te ñëw Sénégal ndeysaan te ban déggante ma dimbali ko xam-xam kayit ba ma koy am man loolu maa ngi ci daara ja ndax loolu nekkul lu loo xam ma doon la mhm. ba nii tey laa gën a man waaw loolu moom du ma ci sori. waaw ndax man bëgguma tamit di wax loo xam ne maanaam bëgg di neexal lu ma li may wax dama koy wax. Mhm. ku mu arrangé nga ñëw ma ñaanal la. waaw arrangé nga xool keneen sëriñ ci bëri nañ. Mhm. waaye loo xam ne ku ma ci dimbali suñu la. loolu mhm. sikki sakkawuma ko. dëgg la ndax damaa yor xam-xamu mag. lu wér. waaw jàng gëstu doon ba pare am ndimbal yàlla. ba pare nag am ndimbali waajur. suñu boom dimbali ma ci wér. ma ci dimbali doomu aadama yi. waaye nag ku yàlla dogal tamit nga xam ne yaa may dégg. maanaam ba amul ndimbal dëgg-dëgg doo jëflante ak man allahu akbar nit mën naa xool sama émission yi wax diglu waxtaan ba mu jeex takk waaw mu romb ko ci jàll loolu yàlla moo dugal ngir ngir mbooma mm-hmm. léegi nit day xool sama waxtaan do xaar sama àgg laa day jégee woom mm-hmm. moo tax damay faral di wax ne ko aajum dara faju yàlla boobu moo tax bëgguma nit di la tàddeel ci dara mm-hmm. man te bëgguma ko ma tàddeel jot daa amul damaa nekk yeneen yoo xam ne gën a ñor ci yooyu <laughs> li may wax saa su ne mooy sëriñ Jamil mii ñu jàkkaar lool du du gone. Mm-hmm. ndax jëfi mag ñi la yor. Mm-hmm. xam-xamu mag ñi ndax euh, bu toogoon tey téléphone bi boo ko ubbee kilifa gune ngay gis moo ko ci woo. Mm-hmm. ndax jëflante na kilifa gune. muy ci wàllum baatin muy ci wàllum zaahir. xam-xam bi mu yor nag xam-xamu mag ñi la ndax mag ñi la toogal tarbi yu mag ñi ba mag ñi yëkkati. li gën a sori ci seeni waxande jox ko. looloo tax xam-xam gi mu yor mi ngi ci dimbali ñoo xamante ni sax mënuñoo génn wax ko. bari na ñoo xamante ni buñ jàkkaarloo ak jëmmam ji sax dañuy tuur xéewal ndax fi mu leen def moo sori fi mu leen génn ci problème mm. wax dëgg yàlla mënuñoo toog sax di ko wax mm. moo tax ci loolu lañuy jàll sëriñ bi boo ñu ko mayee boo ñu ko mayee mm. ñu wax ci sëriñ Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ni mi ngi ci lalu hôpital ca prison ba mën nañ ko sax tuddee lalu hôpital ca prison ba ndax mi ngi feebar hmm. ba pare nekk kaso hmm. boobu ba léegi nag sañ bi nga alerté waaw loolu moom maa ngi koy dégg waaw maa ngi ñaan yàlla daal suñu boobu yëkkati ko ak jàmm te hmm. xat-xat yi mu nekk eh, suñu boobu jëlee ko ci ndax kaso moom jombul kenn nit taxut a mucc maanaam jub taxut mucc waaw maanaam tamit taxut a mucc maanaam mucc moom ndimbal yàlla ngay am ndax nit léeg-léegi daañ ko daañ ko daañ ko jàpp te defut dara dëgg la tumaal wala ñu def ko ay pexe yoo xam dañ koy jël dafa leen neex wallaahi eh, beneen coob tamit nit naa jubali tamit ñu bañ kaa jàpp loolu ndimbal yàlla la leen mm-hmm. waaye damay faral di wax nga xam ne dañ lañuy téye buñ saalit ci dara day xam ne dañu xam ne tamit maanaam lu yàlla bu la bëggee dimbali lay nattu dëgg la natt yooyu mu la ngay muñ ndax boo muñee boo génne ci nga doo xam ne li tax suñu bootee wala lii ndeysaan moo tax am na yoo xam ne eh, man eh, du ma ci du ma ci du ma ci nangoo sori ndax xam naa lu bari wallaahi waaye suñ baara moom ñoo ngi ko ñaanal mm-hmm. ndax suñu mbokkum sëñ la suñu mbokkum daar suñ suñu borom jëlee ko ci xat-xat yi ndax métti gi mu am benn dañu am nañ ko fukk dëgg la wallaahi man de waxtu waxtu waxtu yàlla saa bu ma xëyee mhm. maa ngi koy ñaanal mhm. bu ma jullee bu ma toogee sax sama du fanaan mhm. ndax li ma yéen sama bopp moom laa ko yéene waaye waxtu yàlla yàlla baax na suñ borom na muy gis lépp macha allah waaw suñu borom ngi gis bi am na lu mu junj waaye dafa mel ni ci ñi ma bëgg wax lay wax. muy gouvernement bi nga xamante ni kenn moo leen teree nelaw jamono ji muy Juan Branco. premier ministre bi génn na di wax. Hmm. ministre de l' intérieur génn na ñoom it di wax mu hmm. mel ni plainte bi Juan Branco di wax daf leen a yóbbu see dafa yóbbu seen fit yi. Hmm. waaw loolu moom dégg naa ko euh, waaye nag li ma ci wax mooy. nit ñi moom nañ yàlla tax àddina solo. gouvernement bi. li tax ma wax mooy euh, gis naa image yi. waaw beneen bi soobu tamit gis naa tamit ñoom ñuy wax. Euh, ci wàllum nervis yooyu gis naa ñu ko waaye li ma ci mën a xamal daal mooy. mooy àddina eh, daa am solo. dëgg la te lépp lu ñu mën rafetal nañ ko def. Mhm. ndax diir bu gàtt la. Mhm. ndax amoon nañ yenn ay ministre yoo comme ñoom lañu woon. Mhm. te ñu déggatoo leen. déedéet waaw wala fi ginnaaw yaa ngi dégg sax lañ mënoon mootuñ ko. Euh, te ndomb tànk lu dul ndomb yàlla rek day jeex. wallaahi waaw. kon loolu boo ci bàyyi xel te luy luy jeex moom jur di di di mettil jur di teg ay ay ndax luy jeex rek bu rafetut. dana métti ci sa njaboot. dëgg maanaam bu rafetut dana métti ci yow bu ñaawee tamit dana métti ci maanaam bu rafetee nag dana baax ci yow mhm. kon na rafet macha allah mm, fa laa ci mën a <laughs> allah sëriñ bi mhm. ah xanaa ñu wax ci balu sonko bi ah balu sonko bi de mhm. ñi ngi naan mistik la ndax bi mooy ñaareel yoon muy génne bal bi di ko tël waaw loolu moom dégg naa ko waaw mën naa doon tamit mystique waaw ah, nit ci rafet jot jàpp ne da doon fonoon rek wala da génn ci ah. tàng yaram waaw loolu de mën na cee nekk ah, waaye lu ma doon rek na moom rafetal njort. waaw loolu am na sax. waaw wala donte loolu nit ñaa ngi njort misik la sax na rafet njort ne lu baax la. ndeysaan waaw man tamit rafet rafet naa ci njort. <laughs> macha allah da doon kii rek yàlla. Eh, di tàngal yaram di tàngal yaram laa jàpp eh, mais moom ma eh, macha allah damaa bëgg ñu daaneele ko arrestation hmm. Sonko bi nga xamante ni hmm. ñi ngi koy waaj. Hmm. for nañ ci wewu béykat ni dañuy xaar ba nit ñi dem julli ci tabaski. di xaar tabaski bi di di concentré ci tabaski ngir ñu ni ko ñoseet moom Sonko yóbbu Mm, waaw loolu tamit euh, maa ngi koy dégg tamit. waaw waaye li ma la ci wax daal lenn la. waaw euh, waa nguur gi moom buñ sañoon. Mhm. mbirum Sonko ñu teg ko suuf te man maslaa. Mhm. ndax àdduna gis nga jamono ji bin maslaa nii rafetal teg lépp suuf. waaw nga ni daal amee. waaw kon jàmm lu ko waa jëndee jar na ko. daal am na de. kon ñoom bu ñu defoon nii bàyyi na mu sedd rek. waaw yàlla day soppi doomu aadama mën naa jëm li ñu bëggoon ci jëmu jooju sama naam. Ah. waaw waaye nag waaye nag waaye nag waaye loolu day méttiwaat rek. day méttiwaat ndax am na ñoo xam day na jaral lu ne. Mm-hmm. te am na ñoo xam tamit wax yàlla maanaam jàmm lañ bëgg. Mm-hmm. kon nag nañ seet ci ñi nga xam ne jàmm dina ñor. Mm-hmm. te ñun wax yàlla jàmm ñor te ñi waxtu nekk moom moom lay ñaan. te wax dëgg yàlla bu ma soxeen kat mbirum Sonko ko suuf teg ko ci suuf te rafetal mm-hmm. xam ne kat àddina amul solo te lépp mm-hmm. lu ñu nettali dong la macha allah laa ci laa ci am ma ci wax mm-hmm. macha allah <laughs> jërëjëf sëriñ <laughs> bi euh, wax dëgg yàlla euh, dañuy kontaan bu ñu jàkkaarloog sa jëmm ji li ko waral nag mooy da nga fee toogal mag ñi toog fi toogaayu mag ñi moo tax ku jàkkaarloog ak jëmm ji di waxtaan ak yow du gis lu dul li mag ñi daan wax ndax boo waxee benn wax ñaar rek ne Mm-hmm. diw nee na ma wala mag nee na ma wala sax nga ne kilifa sàngam mës na maa wax nàngam mu mel ni li ngay wax loo xam la loo maîtriser la waaye mm-hmm. xam-xam dëgg ngay wax mm-hmm. nit dina toog ak yow jotaay ba dem bu amul bopp dëgg du xam ne niveau bi ngay waxee ci xam-xam loolu nag mayeeg suñu borom la waaye tamit ragal yàlla ba pare ñeme koo jaamu dafay loolu nit dafay def nit loolu moo tax fa la ñuy yem ne waxtaan bi bàyyi la nga tàggu mbokki internet yi nga xam ne ñoo la doon bàyyi xel fii ci Allô Sénégal jërëjëf waaw li may tàggatoo lenn dong la mooy di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala def ci réew mi jàmm mm-hmm. di ñëpp jàmm di ñaan di ñu jub si suñu borom defal nit ñi tamit li ñuy tabaskee. amiin amiin waay amiin. Euh, te yaakaar yëpp. gën a mm-hmm. gën a gën a dolli ku baax. amiin waay amiin waay. li liñ bëgg tamit suñu borom jàpp na lépp. amiin amiin waay. Euh, di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala tamit. def ci réew mi jàmm. di wax leen loo xam ne waxtu wu ne dama koy wax saa ma rythme émission mooy ku aaju bi dafa fajur yàlla bu ma woo. déedéet déedéet te ku maa ngi koy maa ngi koy wax. <laughs> di am mbégte bu baax di ànd ak yéen jërëjëf macha allah. loolu xam nañ ci dara waaye tamit ñu moom xam nañ ni wax dëgg yàlla ku aajoom narta faju doo jëflanteek moom bari na ku seetaan vidéo avancé mën naa ni sa njariñ moo bari mën naa ni sa njariñ moo fi newul wala sax da ngaa amul chance dëgg bëri na koo xamante ni dafa xool vidéo bi rek doyloo woote njariñam tombeek mu ne fi mu faju am na koo xamante ni doyul sëriñ bi doy na ko woote na waaye jotul insisté wul moo tax gisul résultat waaye ñi mu ko jaral dëgg xam nañ ni wax dëgg yàlla sëriñ Jamil ku jox yitte jaam la waaye ku jox yitte problème mu nit la moo tax suñu borom di ko defar résultat yi muy am saa ne mu ngi noonu mbokki internet yi Allô Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf.